naaw bi ñu leen nuyoo di leen dalalaat jàmm seen chaîne bii di Leader TV di wax ni bu leen fàtte abonné tey nag nekk fukki fan ak juróom benn si weeru ut si atum 2022 ñu ñëw ak yéen si revue de presse revue de nag ñoo ngi siy njëkk stade stade moom mu nga fësal sunu gaynde yi nga xam ne si weekend bii nañ doon joué ànd seen club yooyee ñoom sunu gaynde yi wane nañu seen l' international sénégalais bii di nga xam ne si la ñëw Chelsea équipe bii di Chelsea doon si jàkkaarloo boppam si boobu la match bu baax a baax moo tax journal bi mi ngi bind di fësal naan Koulibaly régalé déjà l'Angleterre moom Kalidou Koulibaly mii bégloo na fan sa Chelsea yooyee gannaaw bi nga xamee ni kii di Kalidou Koulibaly dugal na première biiwam sa Angleterre googee ba tey journal bi mi ngi fesal beneen l'international sénégalais ñu ñu gën ko xamee si Jackson moom Jackson moomee nga xam ni ay atam ñoo ngi toll si ñaar fukki at ak benn moom mu ngi nekk foofee sa Villarreal gannaaw bi nga xamee ni match boobee nga xam ne Villarreal da ko doon amal moom Jackson mii moo njëkk a dugal premier but wu Villarreal gannaaw booba si la Villarreal noggut équipe bi mu doon tasanteel ñetti bal si dara moom Jackson mi nag ma ngay continuer di wane boppam sa Villarreal googee gannaaw booba ba tey journal bi mi ngi ñuy xamal équipe boobee di jàmbur bu Louga gannaaw bi nga xamee ni dafa tàqalikoo nag coach sam boobee di Assane Diallo moom journal bi nag mi ngi ñuy xamal ni kii di Assane dellu si na si jàmbur bu Louga gannaaw bi nga xamee ni moom Assane Diallo mi dafa démissionné woon si 2021 ba ñu génn ba tey journal bi mi ngi ñuy xamal Paris Saint-Germain googee nga xam ne ma ngay continuer di wane boppam foofee sa France ànd ak staram boobee di Neymar moom Neymar mi ñetti match yi nga xam ne mujjun moom la mujj amal ak Paris Saint-Germain googee moom Neymar dugal na si juróomi bi def si ñetti pass yoo xam ne ay pass décisive la ba tey journal bi mi ngi ñuy yóbbu Espagne googee nga xam ni gannaaw bi nga xamee ni kii di FC Barcelone moom la mu doore championnat neexul mais kookee di Real Madrid ak Atlético ñoo ngay continuer di doxal foofee sa ba tey journal bi mi ngi ñuy yóbbu Angleterre googee nga xam ni Manchester United moom ma ngay gën a diig mais équipe boobee di Manchester City ak ki boobee di Arsenal gannaaw bi nga xamee ni dañu enchaîné kenn ku nekk ñaari victoire ñoom ñooñu nag journal bi ñoo ngi ñuy xamal ne ñaari club yooyee ñoo ngee doxal foofee sa Angleterre ba tey journal bi mi ngi ñuy yóbbu Allemagne sa sa Bundesliga ba ngi ñuy xamal ni kookee di Bayern na nga xam ni sa l'international sénégalais bii di Sadio Mané na googee moo jiite championnat bu Allemagne. ginnaaw stade dañuy jubali yéenekaay bi groupe Futurs Médias moom yéenekaay bi nag mu nga affiche l'international sénégalais bi Kalidou Koulibaly mi sa xat njëkkee gannaaw bi nga xamee ni journal bi mi ngi ñuy xamal ni kii di Kalidou Koulibaly ma ngay wane boppam foofee sa Angleterre gannaaw match bi nga xam ni Chelsea da su doon jàkkaarloo équipe boobee di Tottenham te Kalidou Koulibaly dugal si match boobee bii moo tax journal bi mi ngi ñuy xamal ni kookee di ngay doxal foofee sa Angleterre ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk beneen l'international sénégalais ñu gën ko xamee si Cheikhou Kouyaté moom Cheikhou Kouyaté toog lu yàgg amul contrat journal bi nag mi ngi ñuy xamal ni kookee di Cheikhou Kouyaté kookee di milieu terrain sénégalais boobee nag am si lu toll si fanweeri at ak ñaar moom nag am na contrat bu bees engagé wu na beneen club foofee sa Angleterre mais sa Angleterre googee lay des gannaaw bi nga xamee ni ba tey ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk kookee di Cheikh Seck nga xam ne nekkoon na fi ancien lion moom Cheikh Seck mii nag journal bi mi ngi ñuy xamal ni moom Cheikh Seck bokkul si staffu jaraaf boobee nga xam a ni kookee ko si Gris na ko si combat wam boobee nga ne da su doon jàkkaarloo kii di Balla Gaye 2 journal bi nag mi ngi ñuy xamal ni kii di Gris Bordeaux yëkkati na ay kaddu jëmale ko si Abdou moomee ginnaaw record dañuy jubale réew mi quotidien réew mi quotidien nag moom ma nga fasal première bi boobee nga xam ne kii di Kalidou Koulibaly dugal na ko sa Angleterre googee gannaaw bi nga xam ne saison ren bii la ñëw Chelsea googee ba tey journal bi mi ngi fësal beneen l'international sénégalais sa xëti njëkkee ñu gën ko xamee si Sidi moom Seny Dieng mi nag gannaaw bi nga xamee ni moo égaliser clubam bi sa 92e minute yi moom si Dieng dugal na si bii bu rëy moo tax journal bi mi ngi kiy fësal noonee ba tey journal bi ñu ngi fay fekk ay kàddu beneen l'international français ñu gën ko xamee si Kylian Mbappé moom Kylian Mbappé mi nag gannaaw kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko bi muy amal benn interview te xam le ni ñett yi nga xam ne ñoo gën a ba mérité ballon d'or bi man la ak kookee di Sadio Mané ak kookee di Karim Benzema mais ñun ñett ñi ki nga xam ne moo ko si bi gën a mérité mooy Karim Benzema mi ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk Cheikhou Kouyaté moomee nga xam ne journal bi mi ngi ñuy xamal ne kii di Cheikhou Kouyaté am na club bu bees moom Cheikhou Kouyaté mi signé na beneen club foofe sa Angleterre. ginnaaw réew mi quotidien dañuy jubale suñu làmb suñu làmb nag moom ma nga fësal kookee di Tigre de Fass ñu gën ko xamee si Gris Bordeaux moom Gris Bordeaux mu sol koronu Tigre de Fass ba noonee ka seq di Moustapha Guèye keneen ka di Fambaye Guèye gannaaw bi nga xamee ni kookee di Abdou nekk directeuru technique bu écurie Fass yëkkati woon na ay kàddu jëmale ko ci Gris Bordeaux kookee di Gris Bordeaux nag tontu na kookee di Abdou ni kii di Gris Bordeaux mi ngi xamle naan du ma mës a jógee écurie Fass man Gris Bordeaux mi bu ma jógee écurie Fass rek traître la man Gris Bordeaux bu ma jógee écurie Fass rek damay wor kookee di fa mbay ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk kookee di Fils de Balla gannaaw bi nga xamee ni joon na jàkkaarloo kookee di Gora Seck moom Fils de Balla nag daan na kookee di Gora Seck combat débat bi nag mu nga duré une minute 32 secondes ñu leen di wax ni lii nañ leen indiloon tey ci ay revue de presse di leen jaajëfal ba beneen ak yeneen i revue de presse jaa ngeen jëf